خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi mbokk taalibe yi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi nuyu bu gën a sell di leen balu àq di leen bal àq nuyoo bii nag nu ngi kiy jiital sunu sëriñ Cheikh Amadou Mbacke waaye nuyoo boobu ak ziyaara bi dañ koy boole lépp dugal ci nuyoo ak ziyaara président de la république monsieur Macky Sall ak nuyoo gouvernement bi yëpp ñu teg ko ci loxool Cheikh Amadou Mbacke mu jot lil nu ko Cheikh Sidi Mokhtar xalif général des Mourides di ñaan yàlla fi yàgg te wér sëñ Cheikh day dama am mbégte mu rëy te sunu borom dong laa ciy def seede mooy président de la république tànn ma ne ma jiite délégation bi ñëw ci bis bi fan laa jëm Touba mi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira ñaareel ba mooy bisab sañ soyibu kon loolu doy na mbégte man la nuyu ci tur président de la république ma yónni président nee na sëñ Cheikh xam nga moom xam na fi nga jaar moom ba fee mu toog du ko fàtte illaa yow diini kon day feddliwaat ak taalibeem feddli kóllëreem ak yow waaye tallal la ay loxoom yaakaar la ci lii mu nekk di réew mi mu yore ko nee na xam ne ne ñaanam ak xelam ak sa xel mësul jóg ci moom waaye mu ngi ñaan ci waa kër Sëñ Tuubaa ñëpp ngeen ñaanal ko ndax réew mi li mu ci jànkoonteel yàlla jàppale ko ci ba li mu yéene ci njaboot gi yéene ko ci jullit yi yàlla def ko ba ñépp gis ko bu may jotalee nag nuyoo président la république ak délégation bii ma àndal nga xam ne tudd nañ ko waaye dama koy baamtuwaat muy sëñ Xaadim Diop mii di doom di taalibe ci kër gi ak le ministre Arona Ndofène juuf mii ma xam ne dama ko woo ko xam naa yow yaa ngi ci wetu sañ bi maa ngi ñëw ak Ndongo Ndiaye. conseiller président la république ànd ci délégation bi ñu ànd ñëw gouverneur de la région préfet département bi ex service yëpp ñu ànd ñëw ci turu président ñëw ziare si la bu loolu wéyee nag président daf ma noon naa wax nga ñaanal ko fàttewul benn yoon da koy fàttali ak di ko baamtuwaat sa kóllëre ak moom waaye sëñ Cheikh nag dafa am loo xam ne sama waxi bopp la muy sëñ Thierno Diouf Lambaye di sama sëriñ ku ne xam na digganteem ak kër gi li commencé ci xalifaam bi tey sëñ Abdoulaye defe naa mu ci ci jataay bi moom taawu kër gi ak ñëpp ñu topp ci moom ñëpp fii lañ jàng keroog ba ko yàlla moomee. nun ñëpp doom yi ak taalibe dañu koo bokk ñëw jébbal la ko yaa ko waajal fii jullee ko fii dem jébbal ko sëñ Touba kon fii ma ñëw tey sawar naa fi sëñ bi kon li feddliwaat loolu rek di sàkkuwaat ñaan di ñaanal ñëpp di ñaanal xalif général des mourides encore bu baax a baax yal na yàlla wéral cëram ba lii mu sumb ci liggéeyam sëñ Touba mu yeggale ko ba ñëpp fekk ko maa ngi nuyu ñëpp. di balu ak ñëpp yal na yàlla ak sëñ Tuubaa taxaw jërë ngeen jëf